يا رب العالمين وإني سميتها وجه النبي المنتخى وجه النبي المنتخى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمدنا المختار نور الناس مولده مستمسك القناس نفى لخير ما طول علينا وخادل القرآن والفنون نبينا أحمد خادني إله ربي وربي لوما لله يسر خطيئة Rasulallah Rasulallah Rasulallah Rasulallah muridi jóg leen màggal soppe maam borom Tuuba ba Muhammadin Rasulallah alayhi taslimatu mursillahi سعادتي بلا معين سبتت كما بساتني بي خن باتت ملكت خير صمد ما هندو والاختار محمد يسر جند لا يقتي أبدا وأبدا يسوء من لم يحمدا تسلم من قبل لأخرادي هل الذي ñi mbok internet yi baye xel ñi ngi fi ci lam fal di dekk bi nga xamne mi ngi nek euh, région de Louga département kebemer tay nak mu nek fi ñu ñewon fi ben gam go amna fi ñu jakkaro ki nga bokk na si ñi nga xam ne ñoo ko jiitee wala moo jiitee euh, pour lépp lu nekk ci nekk waaw sëñ Ibra sëñ Ibra Kumba Fall mi nga xam ni moo yore programme mu lépp lu jëm ci gàmm gi ñu fas yéene waxtaan ak moom doxalinu gàmm bi ak euh, euh, dëkk bi nga xam ne fi la nekk muy Colom Fall dañ koy bàyyi mu nuyoo rek ñu lay ziar bu baax di la nuyu ah, bisimilah. may ma tàmbalee ci li may tàmbalee ndax ma laaj lu mat laaj. ndax looy wax ba tuddi ci sëñ baara mbàkke rek ñëpp day taxaw déglu lo kon loo cay wax yàlla na looy xam mbaa looy mën a nettali mbaa lu ku baax li mën a dégg bala maa wax ci mbirum gàmm gi danaa wax li ko waral ci mbirum sëñ baara ci li ma ci xam ndax sëñ baara defoon na koo xam ne lu mu wax lu ne lu mu yàgg yàgg cee teg sa andi mbirum barkeb gàmmu Kelom gi ndax ba nga xamee cay jamono nun nga xam ne boobu ganeeru ñu jamono nekk mu ñëw fii toog na boo xam ne dëkk bii de na dem ba mel na ndara kon booba xam nga ne ndax booba sàkketu euh, néegu seng amu fi wéeru seng amu fi moo ko wax suñu bàyyi boobu ñaan ko Momadou Gueye sababu señ ñew señ baara ci ciolom ci moom la jóge ci lu ma mën a xam ndax dama ko jëlee ci sama waajur yoo xam daan soxna penda faal daana ànd ak señ baara señ baara di ko soqloo di ko wolloo di ko rotloo moo tax ma nettali ko ko sagom kon mën naa ko nettaliyaat suñu baay boobu ñu ne Mamadou gi jóge ni fi dem dëkk bu ñaxul ka xunjul ci wetu féete xawa a dend ak Mbàkke Kajoor da ko penku booba ndox dafa xawa jafé jafe Modou gi momu jóge fa dem di fa rotu rot ba rot ay wiiram booba ay mbam la yor sëñ bara tok bo yor yor mu genn ci seng ga ca penji ma di fa féexlu fekk booba suñu baay boobu ñoom du gi degg na sëñ bara wan musu ko gis bi yalla dogalee mu bayilam don def ñëw nuyoo mom sukk nuyoog mom mu ne ko ndongali fo joge mu ne ko maa ngi dëkk dëkk bu ñu xunjul fii de xunjul wa nak ma nga dëkk ca Kajoor mu nuyoog mom mu laaj ko lu doon sey tank mu ne do don rot dama don rot ma seen la nak ma ne na la nuy dogo dem mu laaj ko ko dib serignam mu ne ko sëñ Modou Fall Ngankal nga dëkk ca Kajoor fofé leer gi dugg na ko ba mu wëlbatiku jébbalu ci Serigne Bara Mbacke mom suñu baay Mamadou Guèye boo sëñ Bara ci lom no tuddu mu ne ko ma Siri Guèye mu daal di wut lañset daal di koy watlu boobu bopp bi daal sëq mu xamal ne ko bis nekk tey tudde naa la Mamadou gey nee na ko day man Modou Fall Ngankal mooy sama sëriñ ak sëriñum ñeneen ca Kajoor waaye nag bu ma ci suñu bëgg-bëgg day da nga ñëw dëkk wu ñaan colom fal mu ne ko baax na bu soobee yàlla danaa ya. ko ñëw loolu moo sabab dëkk ñëw sëñ baale ci fii ci colom eh, ba mu ñëwee fii ci colom itam kër Baye Mamadou gi googee la dal rakam ju naan ablay gi daal di jébul ci moom ku ñuy wax Baye Ablaye eh, Ali Seck daal di jébul ci moom ak sama nijaay yu ñuy wax mu na fal njébul yi daal di tàmbale ba ci kër bay Sele gi fële ya. loolu moo andi sababu gàmm gi ndax wàll yi bu nee nangam mi di ñëw rek lu ne mën a ca am ba lu kiimaane loo xam ne lu njëriñ lay doon ndax lem noonu dëkk bi dana mel melokaan wu mel ne ndar wax jëpp ma nga euh, melokaan yëpp ma nga ci biir waxi sëñ Baara ji jox looloo gis nañ ko xam nañ ko ah, ba tax ñu sababu nag commencé gàmm yi daan nañ ko jàng mais jàng yi dañoo dem ba nga xam ne jamono soppiku ñu seetaat ne nuñ koy jànge biñ demee ba duñ ko daa jàngul jàngi doole biñ demee ba xam ne xew na nag am benn bis ñu dajale ne dañu war a waxtaan ku mel ne Ablaye Niang wala keneen mu di ñu jàngal ñu ne d' accord ñu toog ba dajale ba nopp dem ba 1981 ñu waxtaan fii toog ñu yebal ñu ne bu dimanche cawaan dañuy gam ne dem seeti ma ànd ak nangami nit ku ñox maat Kumba buso Bada Bousso Ibra May momadou Diouf Maajo Baral mi nekkoon directeur hydraulique ay Ibra Kumba mi yor aw fosom tak yóbbu nu ci aw fosom bi nu demee nu toog ba ñu ba pare nu dem fekk ablay Ñang Lamine Batoor fiñ ko dalal nu nuyoo moom ma ne ko sa bokki colom ñoo la soxla woon dañoo xam dañoo bëgg a jàngulu mu ne kañ ngeen bëgg a jàngulu nuñ ko samedi mu toog mu ne sëñ ibro man ko Mbàkke mu ne ma samedi day fee juróom benn weer ci kanam sama calendrier samedi yëpp am na borom bu ngeen bëggee bis bu dul samedi nak man naa leen a jàngal ajjum man naa leen jàngal beneen bis ma ne ko loolu di sëñ Abdoulaye wax nga dëgg waaye yëf yi mbooloo bu ñu demee buñ daañu waxtaanaat bu fekkee ne nangu nañ loolu luñ ci xam daañu la ko wax mu ne jeneen ak beneen sam yu fi borom ba bayit dinaa leen ko wax ma ne ko ba tey d' accord bi ma génnee ci biti wax ko nu bokk waxtaane ko ñëpp ne ibrahima ne man de am naa jànkat boo xam buñ ko gisoon kajoor buñ fa demee ñetti jànkat lañ fay tëkkale baara mbaay drama cheikh sall kii ne man de baara mbaay dégg naa jàngam ci dar xudóos màggalu daaru xudóos gi ñu ne nañ ko seete nañ ko seet nu daal wut délégation yónnee ko ca ba mu baara waxataan ak ñoom jubóog ñoom noo ko jëkk fi dugal ko baas di ko fay cinquante mille noo jëkk a yëkkati ah ba yàlla dogalee tund yi seet si ko wàññi ñaax daal di ne kii de bu dee ne ñoo jàngal waa jawaar daal ne kii bu dee ne ñoo jàngal foofu fi la commencé ba waaw loolu li ma la ba ci li may wax tey ci jàng boo ca góorgóorloo am ca positif itam yàlla defal la ca barke xaadim bi mii war a jàng jàng yi tey jël nañ ko fii jël boo xam ne mooy dese mu baara mbay ndax booba dafay ñëw kent ba nuy waxtaan ak moom xañ na ah, booba yàlla moo dogaloon tey mu war ko moom ca loolu li ma leen waxu nit ku baax boo ko toppee day ñëw ca kanam ndax ba ñu discutente ci ci pay dama ne pat bàyyi gone yi bàyyi xaar ñoo ak ñoo doon discutente moom mu ne wax leen soqam bi boobu mooy waxaale loolu booba noo ngi fay baara mbay fanweeri junni ak juróom moom mu ne eh, soq bi ne juróom fukki junni bu ko mu duñu fay te booba sant gi ñu ngi koy fay ñaar fukki junni mu ñu wax mu jaam ñu ne bàyyi bi waxal ma man lu ma wax bu ngeen waxee bu juma ba xaar ne ma fay naa ko ñaar fukk ma ne ko nun baara mbay mi suñu jànkat bu mag juróom fanweeri junni juróom lañ ca moom deuxième la mooy baara jànkat bu mag bi fanweeri juróom la kon xam nga bu ñu waxee juróom fukk duñ ko jàng bay ko lima ci mën tek dal comme dafa and ku nit yor auto diko defal gasoil jëf leen ko ñaar ko juróom bu nangoo baxna bu nangul ngeen bay sëñ Mbàkke lo mi dal di ne khadim jangal leen jubol ak ñoom boo leen ak ñom di jël leen jangal man nga dem ba ba moom kon xam nga tay ñetti at ba mi ngi tegale di mom jangi kon xam nga ne li ñu waxu nit ku bax top rek dang koy gis loolu luma xam ci jangi bu ñu bëggona xam nak seen diggante nekk tey. waaw diggante njabootu sëñ Baara gi. li nga xam ne mën naa ko cee wax sëñ Abdou ginnaaw sëñ Modou Baara sëñ Abdou Mbacke mu fi jëkkandi ñëw ba rëddul fi kër kër gaa ngi fii sëñ Abdou Lahat doom dekkal ko bi mu génnee jamono sëñ Xaadim aw ba rëdd fi kër dëkk bi di dëkku maamam waajuram bu jigéen jógewuñ fii ci kër ku ñuy wax Sélégué muy lu ñu wér léegi itam njabootu sëñ baara gi dama ne ñu ci bari taxaw nañ ba jantub tey bi mën naa laa lemal fukk nit ñoo xam ndax suba teel fii moo toog sëñ Cheikh mbake moom sëñ Abdoulaat baara moo jëkk a toog fii bi mu fi ba fi jógee démb ba mu fi jógee sëñ Modou Bara moom sëñ Amar Fall mbake toog na fii sëñ Asi sëñ Asi moom sëñ Amar Fall di suñu imaam ñëw na toog fii seigne Abdoul Ahad ma nga xamne moy seen mag di mum seigne abdé sibar ma nga fecc kërëm fa la yenn fa la jóge léegi fa la fas yéné del pour diko ko ah nit ñu baax ñu bare bare tam ñëw nañ fi tay ngir yalla ak magal gi ak jëmmal dëkk bi ak seen bokk yo xamne dañoo ne ci dëkk bi ñu gëjë ji santé ñew fi di safonté ak gëjë ji sé ci lool lépp doxalu bokk lo ci yaakar ne loolu l'islam nangulo buñu euh, bu xam dëkk bi ñu nekk muy Thiénaba Fall fayna ñu bari Euh, maanaam umpaleetuñu ko fii waaw bi tolluwaayam jamono ji ak ba ñu koy sanc ak kan moo fi mënee xam wax wax tuuti waaw ba ñu ko mënee sanc day bañ koy sanc day actuellement mënuma ma leen ni diw moo ko jëkk a sanc ndax daañu wax xam nga. daañu wax xam nga am na ñoo xam ne daañu def preuve boo xam ne bokkul ak na mu amee. comme bu fekkee binduñu ko ci gisoo ku ku xam wax la ko boo ko waxee njuum ma mën a caa am ba keneen dégg di la contre waaw ndax a ah, dëkk bu demee dafa demoon bu mu jàgg mu randu ñooñu nekkatu fa ñu ginnaaw ñu dellu siyaat na ñu dellu siyaat man nga leen a xam maa ne ña ko jëkk-jëkk sañ mënu ma ko xam ndax boo gisul ku wér ku ma ko mën a xam cee ña fi magoon wala cee leeral ñooñu kenn nekkatu fi kon wax bu mën a doon ca nga xam dañ koy waxaat ñu di ko déglu feneen war ngaa xam nan ngay waxee ak fan nga ko teg waaw loolu lu ma ci xam dëkk bi nag dëkk la boo xam ne waaw ku ah, ku yàlla ku leen ku yàlla dimbali la wóolu yi ñaanal leen ñaan gi dara desi loolu man xam naa ko ndax ndax 1900 fii sanc nañ fi pont boo xam ne 1955 dañoo dem ba euh, dixième mois cinq euh, cinquante quatre ñu ne dañ fiy def pont de traite daal di koy natt ci ñaari weer mu pare 55 ñu natt ko dëkk bi dem na ba mu mel ne la sëñ Baara waxoon daal di commencé ñëw dëkk bi ñu juróom fukki kër yoo xam dañoo xëy daal di koy natt mu taxaw to ay naar ak ñëpp daal di koy sanc kon waxu sëñ Baara ba waxoon mu doon commencé feeñaat foofu ah ba tax na nit ku baax moom boo nekkee ñoom surtout Serigne Touba. lu mu waxoon ci jamono ñu ko déggoon topp ko dara seen dara desul ndax na mu ko waxee woon ñu jëfee ko noonu lañ ko gisee kon ñun tam buñ ciy wax lu ñu ciy wax war nay lu ñu xam ca di ko teg fu ko war a teg ndax ñi koy dégg ak di ko nettali ñu dellu nag di leen sant cant fa cant ba fa mu yem ndax li nga xam ne mooy li ñu leen war a sant ak li ñu leen war a ñaanal suñu xel ta xalaat lépp ak li ngeen yéene ndax samay doom ngeen ak samay sët ndax kii sama eh, yaayam mooy sama jarbaat nga ànd ak moom kon li ma leen yéene ak la ma leen ak sant gi fa ma war a toll sama xel ta xalaat lépp di leen ñaanal nu gudd ak wér li ngeen di liggéey lépp ngeen am ci ndam lu gën a koy seen yor ci jëy sëñ tuba barke sëñ Bara Mbacke an ko teewe ay déwéni déwén ci lu ngeen ci liggéey mu barkeel sant rek maanaam sant sëñ Touba moo moo moo waral gàmm gi ñing ko door depuis ya 1931 ak légui nak ragal na ni ay at yu bari la yaangi ngi yaa ngi nag euh, guux naar ci guuxum soow sëñ baara mom leppam colom lepp sëñ baara la lepp sëñ baara ba ci kaddu gi nga yaakaar lol moy kaddu sëñ baara manam bo de xol kaddu yi nga xamni ni mom la sëñ baara am ñetti kaddu rek la geneen gu ci ne da cee ko mais ñetti kaddu la muy kaddu ga ga nekk ci bir armée li Touba kaddu gi ak kaddu ga neewon yeru yeneen ju ci dess nak kaddu baare ña nga naan kaddu baare mom bari na ay kaddu mais nak mom seigne baare mom leppam fi ci cholom la manam bo xoolee majorité bi nga xamni ño nek ci biir cholom genn walla gi ay talibé seigne baare lañ li fi ëpp ginnaw ba talibé kër seigne seigne ma samba ginnaw ba muy wa nguran manam lolu moy wa nguran muy khadir yi nga xamni ni ki nek nekk sama ndeyjoor talibé khadir la mom mo yore mo nek porte parole daire bi maanaam euh, ci gàttal daal genn wàll dëkk bi yëpp waa kër sëñ Bara lañ am ñu jóg ndax yàkkamte pour wax ba nu ñëwee ci seex na seex saat bu daw yàkkamtee wax ñëw na seex na seex saat bu ndax am sëñ Touba jàpp na ko ca ña ngi koy yóbbu ca géej ga ma leen alhamdulilah ñu ne ko seex na seex saat bu lu tax nga ne alhamdulilah mu ne damaa xam ne mi ngi dem beer la ma xam ne buy ñëw nekk jant tiim ñëpp Touba réeroo wunu nun taalibe yi nag yàllaa ñuy defal léeg-léeg ndaxam ñu am réeroo mais naxam nanu xam ne ñoom benn lanu kon nun nan boole sunu bopp nekk benn ku gis fii la nu gisee nun waa colom ku gisulut nun ànd nañu nekk benn xaadir murit tijaan xale yi góor yi dëkk bi sant naa leen gërëm naa leen jigéen yi dëkk bi sant naa leen gërëm naa leen jeeg yi mbootaay yi coro mi ko jiite gay sekk ñoom ak busa sekk ñoom ak pendam lam da ñoom ak ñëpp ñi jiite mbootaayu dëkk bi xale yu góor yi ko jiite ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak waa dëkk bi li leen war def nañ ko ba état li nee nañ lu manqué nañu wax ndax bëgg nañ seen dëkk tey jii mboolem loo xam ne nii kray dikk nga fi rek ñu sagal dëkk bi amu ci seen sunu dëkk colom nag ku ne dégg na ko cosaan yàgg na fi jërëjëf ñoo ngi lay sant di la gërëm ba ca kanam